Ndeye Diagne uh, nekk ci direction bi uh, liggéey ci aada ak cosaan bu ministère de la culture et de la communication. waaw uh, tey cérémonie bi aboutissement wu benn projet la bu nga xamante ne Union européenne daf ko xalaat ñu waxtaan ci ak ministère de la culture ak communication pour. xool ci xale yi euh, maanaam seen euh, xarañte ci lépp luy euh, dessin peinture ñu tàmm ñoom di ko def chaque année parce que il faut que ñu wax tamit ne que li fi jot a génn yëpp ci tableau yi ñoom dañu koy utiliser si seen calendrier bi nga xamante ne moom la ñuy partager ak seeni partenaires yëpp donc ñu profité waale ci loolu daal di koy def ci Sénégal yëpp ci région wu Sénégal yëpp pour non seulement Euh, xool ci biir gox-goxaat yi xale yi nga xamante ne dañu am euh, mën-mën te amuñu moyen wu fësal seen liggéey donc euh, ñu àndoon ak si loolu ci centre culturel régionaux yi nga xamante ne ñoom ñooy représenté ministère de la culture et de la communication ci ci région yi donc euh, tey nag nekk euh, bés bi nga xamante ne ñi nga xam ne ñoo gagné concours boobu tey leen leen doon jox seeni prix donc euh, ngeen gis ne que Union européenne jox nañ leen ay prix yu am solo ay matériel lu peinture yu leen di permettre ñu mën a continuer seen liggéey mais ministère de la culture tamit daal di leen yokkal ay récompenses yoo xamante ne en en espèce Euh, bu ngeen gisee tamit ñetti ñu mujjee tamit euh, école nationale des arts bi nga xamante ne ministère lay dépend tamit daal na leen di may ay weer formation donc loolu moo ñu dajale fii tey. bon ñun euh, concours bi may nañu ñu gën a xamoon nañu nekk ay ñu xarañ xale yi xarañ nañu ci wàllu peinture. ak ay toile ak yëpp mais lii gën nañu war ne que euh, xam-xam xam-xam bi mën-mën bi mu ngi fépp ci Sénégal e xam naa bu ñu génnee ci lii tamit parce que ministère de la culture ak communication tamit mi nga xam ne moo yor euh, wàllu art visuel dina xalaat bu baax ci euh, ñooñu nga xam ne déposé woon nañu seen liggéey nekk liggéey yu mucc ay naka lañuy ñuy defante ak ñoom incha allah. daal euh, je pense que loolu ñoom ñëpp buñ ko amoon dañuy jël donc euh, Union européenne projet bi mu am dafa nekk opportunité se ñoom euh, ñu wane seen liggéey. donc damay fàttali rek ne peut-être euh, projet yi ñoo bëriwul mais talent yi ñu ngi fii dañu bëri et à chaque occasion ñu gis ne que ndawu Sénégal yi dañuy. dañu dañu xarañ daal si li ñu nekk donc ay activité yu mel ni biennale bu ñëwee dañ koy gis euh, concours bu amee tamit dañ koy gis tey euh, exposition bi ngeen gis euh, mel na ni ñi ay professionnels yoo xam ne yàgg nañu liggéey la donc talent yi mu ngi fi et ministère de la culture liggéeyam mooy talent yooyu mu accompagner leen ba ñu professionnaliser wu et dañu kontaan suñu gisee ay partenaires yu nga xamante ne ñu ngi ñëw ñoom tamit comme Union européenne ak yeneen partenaires di jàpp tamit ci liggéey boobu noonu